bon lii nag wax dëgg yàlla dafa nekk mbir boo xamante ni comme nu ko Père Galadio waxee le ministre Thierno yàgg na jàppale Grand Thiès dans tous les domaines notamment dans le de la santé bu ñu rappelé en 2013 def na fi consultation gratuite avec 23 spécialistes yu jóge à Dakar avec des médicaments à l'appui fii la ko njëkk a defee à Grand yabe y avait totale Eva Marie Coll Seck ñëw Youssou Ndour ñëw et tant d'autres ñu ñëw ñu defee ko fii ci poste de santé bi loolu c' était une première parce que am na ñoo xam dañ doon def politique mais ñu xel les gens yi nga xam ni amuñu moyen pour dem dans le domaine de la santé dem faju ji wala consulter wu. bi mu ko defee ñu desale fi ay maladie après ñu def suivi bi avec ses moyens ñu jàppale noonu ñooñu ba ñooñu fu ñu gis tamit dañuy taxawloo remercier le ministre Thierno Alassane Sall mu defaat une autre consultation gratuite fii nii à Grand Thiès daf ko à Daaru Salaam daf ko dans tous les quartiers yu nekk à Thiès loolu mu nekk ni day wane ni doomu Thiès la li ñu ko dénk muy ministère bu énergie mu xalaat ni poste de santé yi parfois dinañ am ay problème mu lumière ak yooyu mu ni day jël ci tamit fi mu nekkee muy énergie mu jël ay làmp di ko distribuer les postes de santé à Thiès notamment fii à Grand Thiès di wax ni loolu ñun ñuy nekk ak moom di def politique dañ koy rafetlu di ko ci encouragé di ko wax ni lépp loo xamante ni def na ko à daf ko war a def à parce que doomu Thiès la lu mu def aussi à daf ko war a def à parce que doomu Grand Thiès la lépp loo xamante ni moom taxaw na ci incha allah ñun dañ ko ci encouragé di rafetlu initiative bi di wax ni moom mu ngi tàllal loxo encore une fois waa Grand Thiès di leen xamal ni moom Grand Thiès rek la am lépp loo xamante ni am na ko dina ko indi Grand Thiès partage ko ak mbokk waa Grand Thiès ak yeneen quartier yi nekk fii nii yëpp di rafetlu initiative bi di leen remercier di gërëm ñëpp di sant ñëpp di duy Matar wu Thiès 24 ak ak euh, kiiwam patron mbay samp di leen gërëm di leen sant wasalaam. ñu nuyu délégation bu Thierno Alassane Sall yónnee fii tey dañuy jox làmp yi làmp ñëpp xam nañu njëriñam rawatina si période insécurité bu ñu nekk ñu ne jëlee làmp yi ngeen taal ko kon fu ñu nee ñu teg làmp yi parce que xam nañu dafay sakkanal suñu poos kon Thierno ne leen ko mu ngi jàppale waa Darou Salaam ci insécurité ndax temps yi dañu seetlu dafa bari trop si dëkk bi kon ku la bay làmp rek bëgg na nga des fi ñoo ngi koy sant bu baax man nag maa ngi wax si tuuru. Euh, ICP bi dafa am rendez-vous médical foofu la dem man may sage-femme poste bi ñoo ngi koy sant bu baax di koy ñaanal li mu mun nii yal na mun déwén lu ko raw te yal na indi fii déwén loo xam ne doon donte na indi na indi waat yal na fi yàgg di indi ñoo ngi koy sant bu baax di koy gërëm moom ak ñi mu àndal. yéen ñëpp ñu ngi leen di dalal jàmm vraiment di rafetlu nag teewaay seen ñëw bi daal bala ma dem ci dara nag vraiment sama doyen bi dama koy rendre un grand hommage li tax moom li muy wax mi ngi ci moom dafa ñëw ci district bi kaa avant mu fi ñëw xamante na ñun de defe naa dekkoon na sama aîné de deux ans à l'école mais ci noonu constance boobu lañ ko xamee bi mu ñëwee foyer boo xam ne ñaar ñu jotee kenn du yëg moo koy dox fu dëj am. moo fay jiitu fu ngeen moo fay jiitu moo fay mujj fu ngénte am ba pare nag xiir xiirtal ci jiiti des ba yàlla def ne gis nga district bi ku fi dikk da nga fi fekk loo xam ne fa nga jóge bàyyi woo ko fa ku fi ñëw wax loolu ne vraiment district wu Thiès ànd bi ñu ànd lu ku xewle ñëpp taxaw lu ci bari xëy na am na lu mu fi fekk waaye am na lu ci bari yàlla ci moom la ko jaarale kon boog dañ koy ñaanal yàlla vraiment ñu yàgg ak moom ndax retraité na waaye xaajaloo dem demagul mi ci ñun ndax dañ koo téye pour wax dëgg yàlla ma gunge nu ba ca kanam yàlla gën koo may kàttan ak mën-mën gum ñu ko defal ak euh, tal ko ak kii wax dëgg yàlla te mu fekkee barkay njabootam gépp waaw su ma paree ci loolu maa ngi leen di nuyu di lu vraiment seen ñëw bi di wax ne vraiment Thierno c'est pas la première fois comme ni ngeen ko waxee loolu dëgg la ndax defoon na fi consultation gratuite Euh, am na fii un temps te amoon na ay doléances yu ñu ko joxoon mu defoon un suivi ba am ku ñu fi yabaloon ci ay temps mais depuis boobu xëy na gisaa déggaatuñ ko gisaatuñ ko waaye xëy na peut-être que ñu nit li ñu waroon it defuñu ko topp ñu ci waat daal ndax xam nga kilifa yi du am yenn jot yi toujours ndax day bari ñu ko solliciter. loolu aussi loo xam ne la dama leen koy yóbbante di ko wax ne vraiment lépp lu muy def. ñi ngi koy gis te ñi ngi koy ñaanal yàlla mën loo ko ko te yéeneem tamit eh, yàlla yàlla mën loo ko lépp loo xam ne mi ngi koy mbëbër rek yàlla mën loo ko ko te yombalal ko ko vraiment gis nañ ko te ñu ngi koy remercier ndaxte lii rek vraiment wane na ko ndax au niveau de la commune doyen xam ne ñaata poste de santé moo fi nekk bu ngeen jëkkee ñëw ci dispensaire Grand Thiès vraiment kooku honneur la ndax mënoon ngeen koo jëkkee feneen kaa boole ñu ci rangi mais gis nga fi ngeen jëkkee muy wane na kon am na benn yëg-yëg boo xam ne yëg na ko poste de santé bi vraiment loolu ñu ngi koy rafetlu tamit vraiment ni ko président waxee poste bi dafa nekk ci chantier ndaxte këy na euh, ci ñu xam ne dañ koo dénk léegi collectivité yi la bokk mais xam nga comme ni ñuy wax état mënul lépp collectivité mënul ba kon boog il faut ñi nga xam ne ñoo dëkk ca gox ba ñooñu ñu jàppoo jàppale pour mu mën a dox ndax xëy na peut-être man maa ngi fii waaye dëkkuma fi am na beneen poste boo xam ne sama waa kër ñu koy ñu ngi koy loolu waaye comme man maa ngi fii man fii laa bokk te su ma sañoon boo ma nga xam ne sama waa kër dañuy dem bii moo koy gën a avancé kon boo ma leen di yóbbante ak yéen di leen kii yàlla ndax ci waa ñi fi bokk Grand Thiès comme Béy ak ñeneen ak ñeneen ngeen bañ ñoo fàtte nekk nii vraiment am nañu ay yoo xam ne soxla nañ ko fi yu bari ndaxte boobu ba tey ñu ngi bëggoon laboratoire moom yónnee na fi ndey booy après dina ci kii sax yónnee na fi ba amoon yu mu fi mbëbëtoon mais xam naa ne xam nga yàlla lu mu kii kiiwul tuddul it mënu la loolu kii ñu ko ci it waaye pour rek fàttali daal fàttali daal ak vraiment ñaanal ko remercier ko vraiment di rafetu taxawaay di comme ni ko président bi waxee aussi ay nit ñi ma nekkal kii mooy sage-femme bi mooy maîtresse sage-femme bi kii Florence moom it ci poste bi la nekk ak euh, ASC Matron Awa Dione aussi ASC Matron moo féete maternité waaye vraiment liggéey bi bu du woon ñoom du dox ñun ñaar ñi rek mënuñu koo doxal li ci ëpp ñoom ñi ñoo koy doxal te yàlla def na li ñuy am as néew fii ci post bi fayu li nga xam ne ni nga koy def waaye dañuy ñaan yàlla tamit li ñu fiy def yàlla euh, ñu am fayu yàlla daal ndax fayu yàlla moo gën fayu nit waaye tamit loolu aussi ci doléance yi la bokk ASC Matron bàjjanu gox vraiment euh, te li ñuy liggéey vraiment ñun bu dul woon ñoom suñu liggéey duñ ko mën a natt fenn ndax ñun suñu biro la ñu toog te liggéey bi ci population bi la kon ñi nga xam ne ñoo ñu jokkalante diggante population bi ñoo ñu aussi bu ñu leen mënee di fàttaliku tamit doon nañu neex tamit kon boog vraiment maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di ñaan yàlla di ñaana tamit vraiment Thierno yàlla gën koo euh, yokk mën-mënam vraiment ba bépp loo xam ne mébét na ko rek Grand Thiès ak feneen fi mu mën a doon yàlla yeggaleel ko ko comité de santé bi aussi maa ngi leen di ñaanal di leen félicité comme le comité sortant ndaxte vraiment toujours en suñu côté lañ nekk di ñu jàppale vraiment ndaxte tamit comité personnel sanitaire dégg ngeen fu ne problème yi mu fi amee waaye on touche du bois yàlla suturaal nañ ci ba lool amu ci bu ñu toogee ba wax leen nii lañ bëgg loolu dinañ ko doxal nu mu bare vraiment kon boog le doyen Ali te toujours mi ngi mbébét loo xam ne gis nga li mu fi wax yëpp yéen xam ngeen ne yu bëri yéeneem rek la waaye lu nekk dafa am yoon ndax centre de santé bu ñu koy def xam ngeen c'est le niveau national mais xolam loolu la xalaat fi mu ne loolu la bëgg ba fu mu toog rek loolu lay wax nga xam ne kon vraiment ak le doyen Tall vraiment qui nous a toujours soutenu moom du ma tàyyi mukk di ko wax di ko ñaanal ndax heure bi mënoon na ne maa ngi toog ca jàkka jawale sama kër waaye nekkatul ki waaye chaque jour li mu fiy ñëw comité bi nekk en place duñ ko fi ñëw sax nga xam ne kon bëgg-bëgg la ak yéene gu mu am ak yooyu vraiment daal pour bañ a vraiment ngi nuyu ñëpp vraiment baalu ñëpp àq bu dee am na dara loo xam ne lañ leen na ko vraiment sama xol moo daal waaw kon wasalaam merci beaucoup